alors tolluwaayu réew mi Cheikh Tidiane Dièye c'est la euh, soixante deuxième assemblée générale de de de l'ONU euh, Sall intervenir au niveau de la de la tribune de l'ONU mm. euh, projeté wu dans dans dans l'avenir euh, waxtaane ay ponk comme euh, yu mel ni approvisionnement en yu mel ni wàllu wàllu investissement yi wane ñàkk àndam ci li nga xam ne moom mooy les coups d'état mm. coups d'état Euh, constitutionnel euh, alors euh, ñu bari nee nañu Macky Sall est aujourd'hui à l'aise pour en parler et heureusement pour nous hmm. waaw assemblée général des nations unies bi at mu ne bi mu faloog léegi mu dem ci ànd ak ay délégation représenté Sénégal bi mu mujj mooy bi mu ko mujj a defi ci la doon tàggatoog ñoom mu nekk c'est vrai assemblée général bu am solo boo xam ni waxtaan yañ fay waxtaanee ci wàllu àddina bi euh, ci wàllu développement objectif du millénaire pour le développement objectif développement durable d'ailleurs ak yeneen dafa am solo suñu président mu fay dem ci demam bu mujj bu ñu sañoon mu demee neneen euh, dama ci jàpp nag ni c'est une grande occasion ratée occasion ratée occasion manquée muy lu lu naqadi ci sénégalais boo xam ne am na foo teg image u Sénégal ak crédibilité wu réew mi Euh, maa ngi liir sànq benn euh, journaliste bu nekk New York mu ne yàgg na couvrir ay assemblée générale des Nations Unies yàgg na gis ay manifestations yàgg na gis ay ndaw réew yu fa nekk New York di manifester contre seen président mais c'est la première fois mu gis manifestation bu day nii mu gis manifestation bu fese ni bu wone li mu wone ci ay image mu wax ni moom lu dégradé image yu Sénégal la mu wax ni Nations Unies war na jël très au sérieux lii sénégalais yi wax à New York jar na sax ñu ubbi enquête pour xool lan la ci président boo xam ni da ngay jeexal di dem bu ñu sañoon sénégalais bépp bu fi nekk di patriote bëgg réew mi bu demee taxaw taxawaayu président de la république ni man def naa deux mandats ci sama réew sama constitution mayuma ma def troisième mandat donc damay bàyyi damay tànn ci sama partie ku ma représenté mais suma opposition wu réew danaa leen bàyyi ñu dem ci élection yi mu ni leen tey sama réew jamono ji may wax ak yow amuñu benn prisonnier politique jamono ji may wax ak yow kenn du fa dénoncer ay ay pertes en jamono ji may wax ak yéen et cetera réew mu dal laay bàyyi mais plus que ça réew mu am perspective que bu mu fi dee ñëwaat wala man bu fa keneen kii ñëwaat ak ku mu mën a doon il peut être mon opposant il peut être quelqu'un de son parti dina ñëw représenter si un un Sénégal bi ñëpp bëggoon nag Sénégal ñëpp a ko respecté woon mais mu nekk ci ci perspective bu bees et bu jóg bu defaraat image am malheureusement ça n'a pas dafa dem fekk fa ay sénégalais yoo xam ni dañu nekkoon ci logique et may rafetlu bu baax seen taxawaay. da nga koy rafetlu ah wii oui dama koy rafetlu dama leen di féliciter dama leen di encourager et remercier leen surtout. gis nga je disais que gënalu ma woon bu ma sañoon bu Macky Sall wàccee képp ko fay sénégale nga génne drapeau Sénégal tàccu ko ne ko jaraw lakk jaaraama président de la république. def nga sa wareef def nga sa mission yaa ngi dem na sa ngelaw nangu keneen ku la remplacer muy opposition comme pouvoir danañ ko ànd ak moom malheureusement ña génn à juste titre génn gënalu leen génn ñu pour yàq seen image yu réew génn ñu pour xarab seen président de la république dañu génn parce que dañu jàpp ni réew moo ñu moomu ñu nekk muy Amérique ñu am sañ-sañu taxaw ci mbedd yi manifester ñu am sañ-sañu yëkkati drapeau wax li leen naxadi te ñuy ay nit comme ñoom. loolu ñoom amatuñ ko ci seen biir réew wala boog ñoo ñu fi bàyyi ñuy seeni i mbokk amuñu ko fii ci Sénégal démocratie bi ñu fi yaakaaroon bëgg mu am fi comme ni mu amee Amérique liberté yi ñu bëgg mu am Sénégal comme ni mu amee Amérique respect wu citoyen bi ak dundam ak ak bakkanam comme ni mu amee Amérique loolu la ñu bëggoon mu am fi te amul donc bu ñu gisee ne sénégalais yi mënuñoo manifester ci seen réew. ndax Macky Sall ak pouvoir am ñu ngi jàpp nit ñi di leen rey kaso yi fees na ba amuñu fu ñuy def nit ñi mais bu génnee démocratie comme dox la réew mu ko xamul namp ci boo ko ko xañee du ko metti mais réew mu mel ni Sénégal tàggatu ci démocratie nàmp ko xam ko bu ñëwee ba fi muy jàpp ni léegi mu ngi dugg ci maturité pour démocratie am gën a ñoŋ nga foog ne foofu ngay tase démocratie bi indi fa chape de plomb wala wala tyrannie wala loola neex mais du mën a nekk parce que Sénégal c'est un peuple qui refuse l'oppression ma daaneel foofu loolu moo tax sénégalais yi yi fa nekk ils se disent li nga xam ne suñu réew mënatuñ ko fa am nañu ko exprimer woo fii parce que ñooñu du du ñeneen ce sont des sénégalais c'est tant ñu nekk Sénégal la nekkoon fi dundoon fii tey ñu émigré dem feneen waaye lii fii daw le cœur battant du Sénégal mooy dow ci seen mais donc loolu euh, da ngay comprendre ñu mën a exprimer woon noonu euh,